képp kuy demati Dubaay dañu laa war a saytu luñ ñu tëla xool lan ngay wuti ji Dubaay ana lan moo fay sab objectif ki wax kàddu yu ni mel moom moo di Malal Talla ñu gën ko xam ci Fou Malade ci plateau bi nga xam ne moom moo di ci jàkkaarloo bi ci la daal di àddoo jëm ci Dubaay porte à porte yi nee na sénégalais yi nga xam ne moom lañ ciy tudd dañ leen a war a saytuwaat xool ana ñan ñooy ñooñu leen lan lañ wuti di Dubaay maanaam lan mooy seenu tànk foofu le ginnaaw ba nga xamee ne ñu ngi ciy tudd ay sénégalais yemuñu rek ci ay sénégalaises waaye tam ñu ngi ciy tudd ay yeneen façon nit ñoo xam ne fii ci Afrique la ñu bàyyeekoo nopp ay nit ñu weex tàll ñoo xam ne ñi nga ci biir kon nag loolee dafa war a tax ñun waa Sénégal ñu daal di mën a seppi suñuy doom keccet leen ci wax ci ba mu leer nañ bu fekkente ni ci lañ bokk ñu daal leen di yedd xamal leen seen place saa buñ fay dem ñu daal leen di topp xool leen lu ñutu leen ba sës rëkk ci ñoom ba nga xam ne lépp lu ñu fay defati dañ ciy teg suñuy gët waaye bu ñu bàyyi yëf yi nii mu daal di jàll loole dafa yomb trop moom di malal taala loolee lay sàkku ci nguurug gi gannaaw ba mu waxee loolu lee buuba ndur ma ca plateau ba ne ko loolee munta nekk am na ci loo xam ne nguurug Sénégal yoonam nekku ji dafa yorub di tukki di dem yoonam mënoo koo topp di ko luñutu naan ko ana ngay def ji ana mooy sa objectif loolee yenuwul maanaa xoolal fi ngay teg sa wax ji moo gën malal taalaa ne ko carrément yéene fi avocat ne yëf yi dafa am ay xeetu nit ñoo xam ne ñi ci biir xeet gu nekk ñu ngi leen ciy tudd ba tudd ci Sénégal joxoñ leen ci baaraamu tuuma kon nag dañoo war a setal suñu bopp dañoo war a xoolaat suñu bopp dañoo war a fexe ba coow li ñu daal ciy a boo xam ne moom ci boppam moo ciy àddu naan sama kanam gi dafa déformé képp koo xam ne yaa ngi ma daan tëkku ak di ma jéem a menacé naan yow Adamo danaa def nangam léegi nag jàpp ngeen ma leer na nañ dama xëy rek sama kanam gi déformé wu Adamo nee na loolee maa ko tey maa jël sama vidéo partagé ko ci sama page Instagram nit ñi di ko seetaan waaye dara dalu ma lu wokkul dërëm wokku ma maa ngi ne cocc te maa ngi nekkoon fi ma nekkoon li ma daan wax laay wéy di ma tegoon sama tànk laay teg sama tànk moo de amul boo xam ne mën naa liggéey Adamo ba jàpp ko moom Pape Cheikh Diallo naan ko Gabriel Kane mi nga bëgg a jël ci samay loxo na la leer nañu Gabriel man la bëgg ndax daf may woowee bu nekk mu vocal ma man nag maa ñu daal di njaay ah, cekke na Pape Cheikh Diallo ba noppi ak Mariste police bu Sénégal ñooy ñi ko génne police bu ni ko aljuma ji ñu génn daal ñeent ci fukki nit ak ñeent ñooñu la ñu mën caa ràññeent la fukki nit ak ñaar ñoo ñoo xam ne ay góor jigéen lañu maanaam dañuy jëfandikoo seen bopp diggante góor ak góor ñu fekk leen ci ay appartement ci fi nga xam ne moo di ca Parcelles Assainies ñu nekk ba di siim seen mare ngaañ fekk nañ fa ay préservatif yooyu nga xam ne dañu koo daal luwe ñoom ñëpp la jot a wax moom di ne appartement yi benn bu ci nekk dañu koo luwe journée vingt cinq mille la ñuy fay ña ci ne journée mille la ñuy fay fa nekkee woon moom mooy ñaar ña ay prostituée lañ maanaam ay jigéen ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp ñooñu itam fekk nañu leen fas yéene ñu rëkk seen i ndigg teg ci seen i ay daan yu diis a diis yoo xam ne danañ ko gàddu dox ak moom police dafa daal doxantu ba ci seen biir appartement yooyu la bett leen fa dugg ci biir taal seen i lumière ya leen ni jàpp leen benn par benn ñoom ñëpp nag la ñu fa nekk woon moo di siim seen mare ngaañ di jëfandikoo ay préservatif yoo xam ne moom lañ doon utiliser di ko jëfandikoo ci seen biir ay góor jigéen yoo xam ne mat nañu fukk ak ñaari jigéen ñoo xam ne ay prostituée lañu maanaam ñuy jaay seen bopp keneen kiy jaay boppam jamono ji la ci réseau social bi moo di Adji Raby Sarr moom mi nga xam ne moo fi jiiñ Ousmane Sonko mbirum viol ak la ca topp gis nañ ko ay vidéo yu yees tàq yu muy génn jamono ji la di ko partagé ci réseau social bi benn ca vidéo yooyu ma nga ca benn combinaison bu weex tàll na ko jimboori di combinaison bu jëm mu boo xam ne bu rafet la te jekk loolu la ma ngay si nab di fecc ci woyu di ca bàyyeeku di ca fecc ka def yëf di ca wane ak taaram di wan ne ba léegi moom aji mu ngi xàppi mu ngi bégee ki doon bégee ci woyu Waly Ballago Seck yi foofu la ca vogg ci soirée gi ñu weesu moomu di Ndeye Astou Sall mi ñu fi doon jiiñ naan Waly Ballago Seck daf koo takk-takk suuf seen nañ ko ca mu nekk ca place VIP ba di ndagara wale Waly Ballago Seck nekk ci suuf ci kaw seen bi jooyantu gaa yu bare bare bare di samp ab laaj naan yëf ya la ñu doon wax ana la mbaadu ak njortu lañ cay bëgg a am ak lu ci mën a xew ñu bare bare ñu ngi naan seen yoon nekku ci ak lu ci mën a xew seen yoon nekku ci nit ku ci nekk sax nga sañ ngaa génn bégal sa bopp dem itam déglu sa fans Wally Ballago Seck waykat la Ndeye Astou Sall itam nit la sañ naa dem ci Wally Ballago Seck sañ naa dem ci Youssou Ndour sañ naa dem ci ku ko neex féexal xolam daal di bége gannaaw bi nga xamee la ñu génn ci weeru yoon la moom ci boppam mu daje fa daal di feete ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon kon nag amul benn laaj bu ci nit ñi mën a sant mbaa njort goo xam ne mënees na ko cee am ci wax jiñ fi doon wax naan Waly Balago sekk daf koo takk takk suuf ki takk takk kaw moom moo di Ngaaka Blindé ak Fatel Sow sëñ nañu leen ñoom ñaar ñu nekk ci seen wata di bégg ñoom ñaar Fatel Sow gàddu ab téléphone Ngaaka Blindé di dawal ci oto bi mu koy sinap ak diraay bopp bi maanaam ñoom ñaar jamono ji le ñu ngi dund seenub sëy ci bànneex ak mbégte coalition bi bégal Sénégal moo di coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal Sénégal ñoom ñaari coalition yu mag yi daal nañu def benn dànk def benn say fas yéene xeex ak ki nga xam ne moo di Macky Sall ci élection législative yi ñu dëgmal maanaam ba la maanaam askan bi ci boppam lañ fay toogal waa yeewi askan bi ak waa wàllu Sénégal bu Abdoulaye Wade dañoo fas yéene def benn dànk ngir mën a daal di daan Macky Sall gaayam maanaam fexe ba assemblée nationale ba cohabitation mën faa am maanaam Macky Sall fu mu defee rek ñu mën a dindi mbaa fu mu a fay oote ñu mën koo xoolaat Ousmane Sonko ma bokk ca yeewi daal di dem fekk ji waa Wallu ñu nekk benn wu tànk Ousmane Sonko moomale gaa yaa ngi koy génneel ay vaaram ay vidéo démbam yi muy wax naa man du ma mës a dem ci benn coalition du ma mës a fekk ji coalition yoo xam ne système bi la ñu fi nekkee te man damay xeex système bi te su ma nekkee ak ñoom su boobaa damay gën a bon maanaam damay gën a yàqu nañu yàqoo ñoom ci seen ñi jëmmi bopp la ñuy def man maa leen di raw kon nag sama ñaari xel xalaatul benn may dem di leen coaliser maanaam di dem ci seen i biir di bokk ak ñoom liggéey bi di bokk ak ñoom yoon bi mu ngi mel ni tey jilee bàyyi na la mu waxoon nekk ci coalition ya maanaam diggante yeewi ak wàllu gars di ko génneel ay vaaram yoo xam ne démbam la woon kawteef gi nga xam ne moo xew ci palaatub ceebu jën benn waay bu ñu naan sàmba yàdd moo daal di yóbbu benn xaritam foofu la ca urgence ginnaaw bi nga xamee ne ceebu jën kott moo leen boole ci seen benn palaasu xarit la ñu daje xarit ba daal teg benn palaatu ceebu jën ñu fas yéene ko woon añee moom it di sàmba yàdd toog gi mu toog ci benn chaise bi nga xam ne moom la yóbbu ca urgence ñëw fekk ko fa bif chaise palaatu ceeb ba daal ame ca ak sàññ jël benn ba mu ne wàlle ay nit ñëw àtte leen moom mi di sàmba yadd nag daal nañu koy àtte ba tëj ko ay weeri kaso yoo xam ne sursis la ci moom maanaam du ko tëdd waaye jàpp nañ ko ba noppi itam koy teg ay daan daan yooyu yee ñu ko teg ab sursis lay doon ci ab ndoddam moom mi di sàmba yadd ginnaaw bi nga xamee ne juur jàng nga dox ci digganteem ak xarit boobule te ceebu jën kott mooy li ko waral ñu baree bari naan yàddeen bi ana ñoo koy summi ceebu jën tax na mu daal yóbbu ab nga xam ne moom moo ca urgence ma dem ci le 14 mai Wally Ballago Seck ca Milan spectacle sur spectacle Feeling Dakar ma nga ca biir lu musta am mani la Italia dana yëngatu waalee ngi ñëw le 14 mai ku ñu fa dëgg nee ñu masta ku bëgg ticket dawal gaaw fa ñu koy jëndee dafay gaaw a jeex lii laa wax man leneen la ma cay teg moo di Sadio Mané Ballon d'Or lii de lañu gëm te itam moom la ñu bëgg yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf ba ak jàmm Le Zénith de Paris déroule le tapis rouge pour El Hadji Baba Maal. La ville cosmopolite accueille El Hadji Baba Maal, le dit vocal du Dandé Légnol. 37e anniversaire du Dandé Légnol à Paris. Et eh oui, 1985-2022, le Dandé Légnol de Baba Maal a 37 ans. 37 service du développement social, économique et culturel du peuple africain. Après le lancement en fanfare, les 12 et mars à Nouakchott, Baba Maal et son orchestre font cap sur Paris pour célébrer la diaspora africaine le mai au Zénith de Paris. au Caire, de Dakar à Djibouti, Baba de revisiter ce riche patrimoine culturel africain dans la convivialité et dans l'unité du peuple africain. de Paris le Le concert de l'année le fexe na ba andil leen lu gën a yomb ci nu ngeen mën a amee bii moo di plus de mille neuf cent points de vente sur l' ensemble du territoire italien yomb na demal ci site bi nga xam ne moo di walisec-milan.com nga choisir Viva Ticket ba choisir Viva Ticket da nga gis fu ñu la defal benn panier gis ñu bindal la trova rivenditore maanaam trouver un revendeur soo fi cliquer da nga gis mu bindal la sa région sa province boo cliquer ci région cliquer province bi nga nekk cliquer recherche maanaam chercher daf lay jox numéro de téléphone numéro de via adresse ci fi nga nekk soo xamul gis nga map bi boo xamul map bi am na numéro téléphone boo ci wootee foo mënti nekk sur le territoire italien soo wootee ci numéro téléphone ci fi nga nekk dafa lay wax ñëwal barab sàngam boo ñëwee da gis gis Viva ticket da nga jënd sa ticket physiquement def sa poche bu jour ba nga ñëw ci sa soirée ma préciser que ne point de vente yooyu normal rek la ñuy jaay du ñu jaay billet VIP képp koo xam ni soxla na billet VIP dafay woote ñu réserver ko billet VIP wala ci revendeur yi nga xam ne ñoom ñoo ko yor di wër ci Italie wala di wër ci Europe. su ngeen ko gisee ci site bi nag bi yi ñuy jaay nii les offres sont limitées. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu